asalaamaaleykum mbokk yi amaat mbégte di ànd ak yéen ci télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu jot na ci uh, ngoon ñu egseeg yéen uh, ci xibaaru marax yi tey jile mooy bés bi ñu jagleel xeex jàngoro bi di hypertension artérielle uh, fii ci Sénégal nag li ñu nemmeek mooy téeméer boo jël ci ay mag fanweer yi daanaka dañoo am jàngoro joojule ba tax ñu samp aw laaj naka la nit di xam ba faam xam ba dafa amee jàngoro boobule ñu laaj ko ñu seen xam-xam màcc ci wàll woowee benn ndaje bu ministère de la santé doon amal tey jilee eh, ci teewaayu suñu ndaw yañ fa yebaloon di Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye lii de di beneen ab daje li waral lu ni mel dal di càmbar li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi hypertension nekk ab feebar boo xamante ni li muy faat ay bakkan bari na lool. mun nañ jàpp ne boo jëlee ñetti nit eh, yu dem ba màgg maanaam ay adulte eh, ñetti ñi kenn ki amee na tension maanaam 30 pour cent population Sénégal tey amee na tension. waaye li ci gën a doy waar du loolu parce que bu fekkee ne sax tension am na ñu ngi koy faj di koy contrôler xëy na ñu mën a am yaakaar waaye ci ñooñu nga xam ne dañoo amee tension 8 pour cent rek ñoom la faj ba seen tension jaar yoon mun nañ jàpp ne am na ñaari million gu sénégalais yoo xam ne ñu ngi seen i tension bi fajuñu ko wala bu ñu ko fajee tamit contrôlé wuñ ko. ngir gën a xam bile feebar ak itam nan la ñuy def ngir daal di koy moyu kañ la wax nit ki. dafa hypertendu. bu ñuy natt ñun tension nit ki dafa am ñaari chiffre yu ñuy natt benn bi mooy bii féete kaw ñu koy tuddee systolique wala maxima euh, beneen bi bi féete suuf ñu koy tuddee diastolique wala minima euh, systolique bi bu fekkee ne egg na ci 14 wala mu weesu ko rek nit ki amee na tension euh, diastolique bi maanaam minima bi tamit bu eggee 9 wala mu weesu ko. nit ki amee na tension bu ci nekk nag dina définir tension maanaam bu ma amee sax euh, quinze ci maxima bi te bi ci feccee suuf yéegul mun nañ jàpp ne amee naa tension. hypertension artérielle doon itam ab feebar boo xamante ni mën naa yàq yenn ci ay organes yoo xamante ni rek mu ngi nekk ci nit ki. mën na laal yóor bi mooy accident vasculaire cérébral ñuy faral di gis euh, nit ki di paralysé loolu mën na mën na jóge si tension euh, maladie rénale chronique insuffisance rénale mooy ñuy faju dialyse tension bokk na ci la nga xam ne euh, day indi complication yooyu. mooy nit ñi di war a tàggat seen yaram leen li mooy wàllu lekkin na suñu façon façonu lekkin wàññi xorom si wàññi suukar si. donte nguur bu Sénégal mi ngi def ay jéego ci lépp lu soxal wàllu prise en charge bu hypertension artérielle loolee terewul li nga xam ne moom moo di garab yi ba tey dafa cher ba tax na ñu daal di sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci bile feebar lu war la ngir rek daal di sauver ay bakken intersyndicale bi ëmb liggéeykat yi nekk ca SNHLM di naqarlu yorin uh, wi ñu nemmeeku le uh, ci seenub uh, këru liggéeyukaay googule ñu ciy joxoñ baaram tuuma directeur général ba bokk na ci li ñuy naqarlu ci benn sitin bu ñu amaloon tey jile ci suba ñu ne ñàkkum carburant waaye tamit bu ñu fajoo bu ñu feebaree kon bokk faju normalement ñu ne loolee nekk na fa ab am na beneen mbir bu ñu yëkkati muy ñaar fukk juróom ci ay hectare suuf yi ñu moomoon te ñu ne dañ ko foqarti ci seen i Diokho ñu déglu ki jiite intersyndical bi mu ngi euh, tudd Ibrahima Kamara euh, ci micro Ndeye Thiaba Ali Ba ak Mouhamed Dieng. maison tey jii mbooloo mu génn fii personnel u HLM moo génn ba si région yi ñoom ñëpp yëg nañ li ñuy def nii cest à tey dañoo sonn dañoo tayyi dañoo damm sincèrement on en tey mënuñoo feebar ba faju suñ doom yi mënuñoo euh, feebar ba jënd garab mënuñoo am papier buñ liggéeyee mënuñoo am carburant mënuñoo am dara tout est bloqué dans cette maison leerul sa ndax ndaxam dinañ fayeeku mois prochain tey 60 yu ñu am ça veut dire am na luñ fi liggéey am na luñ liggéey si réew mi réew mi soo fi dindee HLM mu jeex donc loolu c'est important ñun nañ ñu jox luñ mérito bàyyi promoteur privé yi bàyyi caaxaan yi sa wax su suñ njiit mais moo gën ñu nekk fii di jënd ay oto tey jënd ay oto suba yu du jeex ay avantages yu du jeex ay voyages commerciaux di tukki dañ ne tukki bu mu fi amati. yaa agence de gare boo xam ne ñu ngi ko loué di fay waa ji un million bu amul benn njëriñ dañ ko réfectionné dañ ko bëgg mu dakk doxañ liñ di neexu ñu depuis très longtemps ñun dañoo sonn. muy PCA muy loo xam ne ñun on l'a pas on l'a pas dialogué mais rien ne directeur général bu SNHLM di Mamadou kase nag moom nekku fa woon jéem nañoo jokkoo ak moom ci téléphone bi waaye fii mujj entu antu dégg ngeen ko fan yii yëpp ay jafe-jafe yu ñu nekk ci marché Gueule Tapée di dund ñoom euh, gis nañu it ñu nekk ca bâtiment C dañoo lànk ne duñ ca jóge te moo ne boobu boobule dafa yàgg saa su ne mën na daanu ci seen kaw indi fa njombe dem xool marché Gueule Tapée naka lay doxee ak yeneen jafe-jafe yi ñuy dund saa su nekk reportage Maymouna Ndiaye Pape Sangone Mbaye ñu ngi fii ci marché Gueule Tapée ci béréb bi nag ñi ngi ko sanc ci année 1900 yi ca jamono boobu benn bâtiment képp moo fi nekkoon ak i baraak. dama ne maire bi fi ñëwoon Dakar Bouks jamono yooyu lañ ko defaroon waaye boobu ay baraak moo fi nekk ak benn bâtiment kese. ci digg maal bi mu foofu ñuy jaayee yàpp foofu moo fi nekkoon comme batiment jamono di dox ñu dem ba yokkaat yeneen ñaari bâtiment booba atum 1993 la. booba taa taxaw nañu taxawal nañu fa loolu mat euh, ci parti parti A def nañ ci 100 cantines parti B ñu def ci cent 122 quantine pâtissier ñu def ci cent quarante deux cantines. bi ñu xalee marché bi yokk ko ci la jafe-jafe yi gën a yokkee ñoom it looloo tax ñu samp ab kuréel ngir mu jug ci ni mu gën a teelee ci yooyee jafe-jafe. bu jëkk ba mu amulee bunt fu neex waaye fanaan fanaan ci couloir yi fanaan ci cantine yi fanaan ci ron taabal yi te mënoo ci dara. loolu comité saison bi moo xeex ba loolu lépp dañ. waaw amatul amul ñu am ñu fanaan léegi bëritul à part gardien yi xëy à part di vingt une heure bu ñu la ubbulu doo dugg ci biir marché bi loolu ay jéego la naam wante tey jii bâtiment C bi ñu bëri d'accord ñu ci ñu daaneel ko. dañu ne dañ koy toj pour defaraat ko toj boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo fi nekk borom place yi nga xamante ni dañu leen wax ñoom ñoo signé borom place yi signé wuñu yi ñoom ñooy xobbeeku di daanu. mais du du marché bi amul benn magasin boo xamante ne daanu na fi maab na fi. bâtiment bi wala toit bi ñu war a daaneel loolu ñu bëri déggoo ci tax ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo luye seen i cantine bugguñu ñu dugal leen ci béréb bii nga xam ni ñu ngi koy defar mu féete ci kanaal bi mu janool Maimouna Ndiaye ñu des ci li suqali koom-koomu réew mi ak BNDE di banque nationale de développement économique moom nag ci atum 2018 jàpp na ni am na yokkute bu rëy ñaari milliards ak téeméer ci ay millions ba tax na boole nañ ko ci banque yu yamamaay yi nekk fii ci réew mi kiy jiite banque boobule di Thierno Seydou Nourou si moom mu dellu siwaat ci liggéey wu am solo bi ñu ne def nañ ko ren jile ñu déglu ay kàddoom ci micro Fat Bintou Conté ak Diafara Ba Euh, am na solo trop ndaxte euh, bi ñu commencé tàmbali BNDE ak léegi cinq ans la juróomi at la si juróomi at yi euh, trente milliards la ñu amoon trente milliards la ñu démarré tey am nañu téeméeri milliards ak juróom fukk juróom ci milliards. maanaam cent soixante quinze milliards la ñu am ci ci total bilan loolu mooy que li ñu amoon si 2014 multiplier nañ ko par six kooku rek war na ne am na lu ñu jéego ñuy def foofu ci économie Sénégal yi te soo xoolee bu baax ci bilan BNDE loolu yëpp ay financement la ak ay ressources ñu wuti ci rek di jàppale PME yi di jàppale état bi di jàppale entreprise yi di jàppale Sénégal actuellement tey mën nañ jàpp ne euh, suñu xoolee si total bilan bi mën nañ jàpp banque moyenne la ba léegi banque moyenne la soo xoolee total bilan bi ndaxte ñi nekk ci kaw sori nañu mais ñu ngi ci digg bi ñu ci digg bi en en il y cinq ans mais tey ñu ngi ci digg waxtaan wu yaa ah, bi ñu bëgg samp ci réew mi rawatina ci wàllum ah, politique société civile bi ne moom tànn na professeur Babacar Gueye di constitutionnaliste ak ah, Mazida Ndiaye ngir ñu jiite comité de concertation bi ñu nar a taxawal mu Ndiaye Cissé moom mi jiite ONG 3D jàpp nag ni jaar-jaaru ñaari kàngam yooyu le moom moo kon firndeel tànneef bi ñu am mu cay dolli moom mu Ndiaye Cissé ne li ñu d'accord tamit mooy ñaari jiite loolee di comité bi ñu déglu ko ci micro Alhassane Ba ak Mohamed Dieng. Euh, rafetlu d'abord le fait que majorité opposition mën a ànd jàpp ne mun nañ fi teg commission tur bi amul solo maanaam euh, attribut yi ñuy jox commission maanaam rôle mooy am solo alors euh, maintenant dañu wax ku nekk proposé société civile opposition majorité ku nekk proposé ñaari personnalité ñun ñu jàpp ne personnalité yi ko mën a jiite bari na waaye am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne war nañu mën a def objet d'unanimité boo jàppee ku mel ni professeur kër Gueye ak Majid Ndiaye mm-hmm. ñetti raison ñetti euh, mbir mën na tax ñu jàpp ne war nañ ko mën a jiite benn bi mooy mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp koo ci jël eh bien euh, xam nañ sa taxawaay ci ndey ji seex mm-hmm. fu féetewul fenn ñaareel bi mooy koo ci jël mus na jiite commission bu nu mel. maanaam expérience bi mu ngi fi donc boo xoolee seen jaar-jaar ku ci nekk jiite na ko baaba kër Gueye jiite na ko 2004 moo indi Sénat président Mazit Ndiaye jiite na ko en 2003 en 2011. alors mais lu tax ñu proposé mu nekk coprésidence maanaam ñoom ñaar ñu bokk ko jiite mooy que ne déjà kii juriste la kii du juriste. Babacar constitutionnaliste la juriste la magit du juriste mais am na expérience su maj mais yombalkat médiation ak yooyu moo ci loolu ba léegi euh, professeur Ramsatou Sow Sidibé moom li mu jàpp nag mooy terme de référence yi maanaam nan la ñuy waxtaanee ak naka lañ koy defee dañ ko war a xoolaat bu baax a baax mu cay dolli moom bokk ci pôle non aligné euh, ni wàllum yorin bu baax muy euh, gouvernance bonne gouvernance laalewul dara ak dialogue politique boobule am na ay tegtal yu mu yëkkati ngir rek dialogue national boobule ñuy waaj amal lu yàggul dara ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai Alhassane Ba Mohamed Diagne. Amsatou Sow Sidibé wane na ni ànd takk ni ñuy doxalee ci dialogue bi. mais dama ne ni ñu déparé yëf bi d'accord ma ci xam nga lu tax parce que dañu ne dañuy def terme de référence ñëw rek daal ñuy tegal affaire euh, code électoral bi affaire élection yi waaye Sénégal nit ñi dafa am yeneen yu leen soxal institution yi lu mel ne assemblée nationale mais waxtaane ko xool ban rôle la am saytu xool euh, mbirum euh, suñuy am am yu ñu yàlla baaxeel pétrole bi gaz bi et cetera naka lañ koy gérer yooyu question yoo xam ne la Sénégal daf leen saf ñu waroon ko boole ci terme de référence yi def benn waxtaan bu rëy boo xam ne yooyu yëpp la bu ñu neexee nag ñu ne ci biir waxtaan wi dañu koy tas commencé ci mbirum élection yi bu ñu neexee tegaat ci lii tegaat ci laa. mu bokk ci ñi ñuy duppee pôle des non-alignés wante sàkku na itam ñu taxawal beneen i pôle ñu tuddee ko pôle des indépendants njiitalu kaar leneen proposé itam ci placeu commission cellulaire bi ñu bëgg taxawal ab comité observation de la concertation. nga xam ni du politiciens yi rek wala boog du indépendant ñi ñu wax indépendant euh, euh, sénégalais yi yëf bi daf leen soxal dañ ci war a dugal seen loxo citoyen lambda mu nekk parti bi wala mu nekk parti bële secteur privé kilifa diine kilifa aada donc ñu créer comité boobu nga xam ne moom mooy gérer yëf yi ba pare bu ñu jëlee ay conclusion maanaam bu ñu tëralee dara ñoom ñooy saytu seet ndax ñu ngi respecté loolu ñu tëral. mu gis ne itam benn bis ñu jàpp ko ñu def ko journée dialogue national mënta réglé benn problème fii ci réew mi moom am Amsatou Sow Sidibé gis ne faw ñu taxawal ay waxtaan yu am solo yu dëggu itam nga xam ne bu fekkente ni am na li ciy tukkee. njiit réew ci boppam du ci mën a teggi dara maanaam appliquer rek la ñuy mën a def. jërëjëf Alhassane Ba sant leen gërëm leen yéen itam mbokk yi fi lañuy ñuy ci xibaaru marax yi bu vingt h jotee incha allahu euh, Cheikh Tidiane Diaw dina fi ñëw yaatalal leen xibaar yi en français di leen ñaanal ndogub jàmm jërë ngeen jëf.